mbokk yi ñuy teewlu Seneweb TV comme ñu ngi amaat mbégte ak kontaante dellu si waat ak yéen ci jotaay waxtaan yi leen di amal jamono ji jot te mu soxal tolluwaay réew mi tax na tey ñuy dalal jëwriñ gi nga xamante ne moom leen dénk wàllu artisanat ak li jëm ci secteur informat bi ak li koy euh, soppi euh, Pape Amadou Ndiaye leen koy wax kon ñu daal di koy euh, ubbil rek mu daal di nuyoog yéen rek ñu daal di xuus ci li nga xamante ni moom fi tax a toog bismillah monsieur le ministre. asalaamaaleykum rahmatullah ñu ngi nuyu mboolem ñi nga xamante ne ñoo ñuy seetaan ak ñii di ñu teewlu. di di leen ñaanal. ci doorteel weeru koor gi. kooru jàmm di ko ñaanal tam suñu mbokk katolik yi. ñuy nga xam ne ñi ngi ci njeextal. seen weeru karem yàlla na ñu yàlla defal ñun ñëpp jàmm. ok euh, mu mel ni aljuma ji ñu génn danga nga jiite ab atelier. jëm ci wàll formalisation acteur ak unité ci wàllu production ci économie informelle euh, ndax mën nga ci dikkaat leeralal ñëw lan moo sabab ndaje bu ñu mel yàlla dafa def président la république dénk ñu euh, ministère de l'artisanat waaye toftal ci transformation du secteur informel maanaam soppi ni ñi nga xamante ne dañuy liggéey ba mu ñu mën a bindu ndax dañu gis ne ci Sénégal téeméer yoo jël juróom-ñeenti fukk ak juróom-ñaar yëpp maanaam lépp daal ñi ngi ci secteur informel maanaam téeméer boo gis ñetti kese ñoo formalisé ñoom ñoo am kayit te bindu te xam nañ ne soo bëggee économie boo xamante ne dafa war a mën a indi koom war ngaa xeex informel boobu ndax li nga xam ne mooy PSE bi nga xamante ne moom mooy fi nga fi ñu tënku pour naa yi nga xam ne Sénégal war nañ koo jéego yi mu war a teg fii ak euh, mille neuf deux mille trente cinq PSE boobu dafa ne informel maanaam nit ki su binduwul bokk na ci lii tënk sunu économie moo tax ñuy xeex ak liggéey pour que loolu mën a fee deñ pour ñu am ay entreprise yoo xamante ne yu am dëgër laay mën a liggéey mën a créer ay emploi maanaam jox nit ñi liggéey ba pare mën a indi koom ci dëkk bi loolu moom moo tax ñu am lu ñu tuddee stratégie maanaam këyit la bu ñu tënk mbéyam mbooleem li nga xam ne moom la ñu naa fii ñetti at jàpp ñeenti at ngir li nga xamante ne mooy day yombalal nit ñi pour ñu mën a soppi seen euh, entreprise pour jóge ci ñàkk bindu bi wala mën a bindu loolu nag euh, dafa am ay pàcc yu bari yoo xam ne ci la tënku pàcc bu njëkk bi mi ngi ci nan la ñuy yombale ba nit ñi mën a jot ci financement ndaxte gis nañ ne que financement dafa nekk lu jafe lépp lépp dafa jafe ci ñi nga xamante ne dañ nekk ci secteur informel ndaxte ki nga xamante ne mooy leble su xamul yaay kan maanaam amuloo comptabilité xamul sa histoire économique maanaam xamul fan nga jaar ci ci euh, ci liggéey du la mën a jox te ki informel amul bind loolu dafay am ay jafe-jafe moo tax ñuy am loo xamante ne mooy financement adapté bu méngoo ak mi nga xam ne mooy secteur informel ñaareeli pàcc bi bokk na ci lu ñuy yokkee koom gi nga xamante ne moom ñiy liggéey seen liggéey gën a ñoŋ mooy améliorer la productivité parce que tey soo ko gisee benn artisan mën naa yore defar dàll def ñetti fan pour defar benn dàll dàll bi mille francs la ciy am kooku productivité bi baaxul nu ñuy def ak ay équipement ak local maanaam foo xamante ne euh, jumtuwaay yu xarala ak tamit foo xamante ne fa muy liggéeyee mu nekk bu mucc ayib ak yi nga xamante ne yooyu moom la ko war a doxal ba lii nga xamante ne mooy liggéey bi ak mën naa dem ba tey ci benn bés bi mën naa defar cent wala deux cent dàll wala mun a defaat tissu yére yoo xamante ne gën a mag wala muy ay bunt ak yeneen ak yeneen yoo xam ne dina rafet méngoog jamono te loolu dafay laaj ay équipement yooyu laaj na nag jumtukaay yooyu itam nuñ leen ci tamit formé maanaam tam nan lañ leen ci tàggate bu ci jumtukaay yooyu ñu mën koo liggéey ci mën ko liggéey ci liggéey bu mucc ayib loolu tamit beneen pàcc bi mooy nan lañ leen def ba jàppale leen ba ñu mën a suñu fogee faju faju suñu amee gàllankoor moom la tubaab di wax protection sociale moom yooyu tamit mu nekk lu am solo loo xam ne tey jii am na tam yoo xam ne tey jii dinañ ci waxtaan muy mutuel social benn mutuelle boo xam ne président de la république teg na ko fi pour yombal ñi nga xam ne ñoo nekk ci secteur informel bi pour ñu mën a faju wala tamit suñu amee ay yenn gàllankoor ñu mën leen cee jàppale loolu tamit ay yeneen ak yeneen mooy pàcc yi nga xamante ne moo nekk ci biir stratégie bi yoo xam ne waxtaan nañ ci ak ñi nga xamante ne mooy suñu àndandoo ñi nga xam ne ñooy président chambre de métiers yi mooy tamit euh, euh, secrétaire généraux yi nga xam ne ñoo fa ne di leen jàppale ci liggéey bi mais itam ak OPA yi nga xamante ne ñooy ñiy yore euh, structures yi ñi liggéey ci artisanat yooyu yëpp dañuy waxtaan ñoom waxtaan wax leen yi nga xamante ne mooy lii yombal artisan maanaam secteur informel nu ñu leen di yombalal ba ñu mën a jot ci bindu mi tey am na benn lu am solo lu ñuy wax statut de l'entrepreneur statut boobu yombalal na ñi nga xamante ne tey ñoo bëgg bindu ba lii jafe-jafe ci ñoom ñu mën koo yombal jafe-jafe jooju moo doon ñu bari dañ doon wax dafa cher bii nag moom ñi ci bokk du ñu fay dara te soo bokkee fayoo dara lépp loo xamante ne ki nga xam ne formalisé am na ko mën nga cee jàmm mën nga am ci marché public yi maanaam su fekkee dafa am dañuy yónnee ay marché nga mën caa jot financement yi mën nga cee jot ak yeneen ak yeneen waaye dafa am lenn yoo xamante ne da koy laaj pour nga mën caa bokk bi njëkk mooy nga am fukki at ak juróom-ñett ak lu ko ëpp ñaareel bi si topp moom mooy nga am sa carte d'identité nga mën a dem bindu ji bi ci topp tam moom mooy ñu xam fa ngay liggéey am na tamit ci ci sa koom ku ci mën a bokk mooy koo xam ne ci at bi liggéey gi mu liggéey yëpp koom gi suñ ko boole di nga gën a néew quarante millions maanaam juróom ñeent fukki million pour ñi nga xam ne dañuy jënd ak jaay fanweeri mi euh, juróom benn fukki millions pour ñuy jënd ak jaay ñeent fukki million pour ñi nga xamante ne ñoom ñooy artisans yi moom mooy ñi nga xam ne dañuy liggéey ci seen xarala ak ñi nga xamante ne tey ñooy service mooy am koo xam ne dafa yàqu nga defaraat ko loolu fanweeri million la loolu yëpp soo ko amee xa di nga mën a toog ci ñetti at nga bindu su fekkee weesu nga la loolu ñu bindaat nga nga nga bokk ci formalisation bi mu gën a am doole mais su fekkee loolu tam amuloo ko nga daal di binduwaat tamit ci euh, euh, entrepreneur bi muy jumtuwaay bu am solo boo xam ne waroon nañ ci waxtaan ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko war a jëfandikoo ñu gën leen ko yaatal ñu mën koo wasaare tam suñu delluwaatee ci seeni ñooñ loolu itam mooy benn ñaareel bi mooy mutuelle sociale boo xamante ne dafa am solo lool président de la république teg ko pour jàppale ñëpp ñoo xam ne ñoo ne ci secteur informel bi ba ñoom itam suñu feebaree ñu mën a leen a faj seen i at ñi nga xamante ne ñoom ñooy seen i apprenti suñu amee gàllankoor ñu mën leen a faj waaye tamit tam su ñu demee ba ba ca kanam bëgg nañ dem ba ci dugal ci su ci alt ku àll ñu fay la wala koo xamante ne tamit am nga gàllankoor ñu jël la en charge yooyu yëpp ay levier la yoo xam ne président teg na ko ñu koy dooree ci artisan yi te incha allah su doxee ba ca kanam ñu mën ko yaatal ci secteur informel bi yëpp. Oh, monsieur le ministre mu mel ni am na liggéey gu am solo wu ngeen tàmbali woon ci wàllu nduróole yi ndaw yi di sol ñu koy wax tenue scolaire euh, fan ngeen ci toll. ci yaatal gi loolu tam ci li président la république ci xelam bu yaatu dafa teg benn projet bu ñuy wax xëy ndaw yi ci biir xëyu ndaw yi nag mu am benn pàcc bu mu jël jagleel ko ñi nga xamante ne. ñoom ñooy artisans yi maanaam ñi ci gën a xam mooy tailleur yi muy 10 milliards boo xamante ne dañ leen koy jox ñoom ñu ñawal xale yi xale yi daal di am tenue tenue yooyu nag day yombalal xa borom kër yi ñi nga xam ne dañuy yor njaboot ba mu yomb ba ñoom tey loolu nga xam ne dañ ko waroon jël muy koom ñu war ko jënd tey jii duñ ko jëndati parce que président de la république moo leen ko jëlal beneen bi tamit day tax xale yi xam ne ñoo bokk. parce que suñ nuróolee rek kenn dootul xeeb sa morom di leen yombalal tamit sécurité parce que xale yi suñu solo nga xam ne kii xale la soo ko gisee fu mu warut a ne sax ñu daal di koy woo woo daal di koy woomat yooyu yëpp luy am solo la président de la république def ko waaye yemu ca dafa ne nag da koy def subvention maanaam ñi ko jot war koo liggéey lañ leen di laaj ci ay këyit pour mën cee jot mu yombal ko loolu moom mooy subvention loolu moo tax tey. ak gouverneurs yi ñu ngi leen di sant suñu mbokk euh, préfet yi ak gouverneurs yi ak sous préfet yi ñoom la président wax ne ñoom ñoo waroon a jote séddale bi ba képp koo xam ne da nga bëgg ci jot ci marché yooyu da ngay jaar ci gouverneur moom mu def comité boo xamante ne la jox comité de pilotage boole ci yeneen ñi nga xam muy président chambre de métier yi ak ñeneen ñoom ñu toog saytu mbir mi ku ci war a jot nga jot ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko jot tamit ñu accompagner leen ba ñu mën koo liggéey ci liggéey bu rafet sant nag ñëpp ñi nga xam ne ñoo ko ci doon def parce que ñi ngi ko bokkoon ak sunu naataango ministère de l'éducation nationale ak seen IEF yi ak ñëpp ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di ànd ci tamit ak DER ndax lépp lu doon mbiru fay bi ak accompagnement bi DER moo ko yoroon te macha allah alhamdulilah ñu def ko ci liggéey liggéey bu mucc ayib ba tey ji Euh, bépp ñi nga xamante ne ñoo doon ñoo ko yoroon ñoom liggéey nañ ko ba jébbal ko ñi ngi ko waroon a jébbal ba fi mu ne nii ñu ngi ko jox xale yi. ok monsieur le ministre ñu jeexalee Zampa moo di ay bërëb yu ngeen jagleel ngir recaser ñi ñuy wax mécaniciens yi ak ñi nga xamante ni seen xam-xam dafa màcc ci wàllu oto donc. waaw loolu nag tamit projet président de la république la projet boo xamante ne ba ñu jotee sunu indépendance ba tey. mësul am ndax euh, mécanicien lu ñu ko doon xam rek tey mi ngi fii suba ñu dàq leen ñu jëm feneen suba ñu dàq leen moom mooy loolu lañ leen xamee woon président de la république daal di ne loolu dafa bëgg mu dakk surtout fii Dakar nga xamante ne li fii nekk ci mécanicien di wër di amuñu fu ñu nekk kenn xamul nu mu toll mu jël cinquante quatre hectares fii ci Diamniadio jagleel ko ñi nga xamante ne ñooy liggéey ci mécanique muy mécanicien di tôlier di pentre ak ñeneen ñi nga xam ne dañuy jaay oto yooyu yëpp muy projet bu yaatu boo xamante ne projet bu bees la boo xamante ne première phase bi maanaam li nga doon def mooy terrassement mooy defar euh, tund bi ba mu na ba mu yaatu ba mu rafet ak tamit euh, atelier yi njëkk yooyu yëpp pare na première phase bi maanaam jéego bu njëkk bi pare na ngi sumb ñaareeli pàcc bi ci ñu ngi ciy door ñaareeli pàcc bi nag dootul nekk comme premier bi ay atelier ay hangar lay doon pour mu gën a gaaw te tamit mu jël ñu gën a bare te ba pare gën a méngoo ak sunu dundin ak liggéeyukaay bi nga xam ne moom la sunu artisan yi ne loolu macha allah ñu ngi ciy dox di ci ñaan ak ñi nga xamante ne ñoom lañ ko seqal ñu am taaxirlu tuuti rek. incha allah feeg tuuti ñoom ñëpp ku ci nekk li nga war a jot di nga ko jot di ñaan nag te xam naa ne président dinañu ko defal ñu mën ko yaatal ba yóbbu ko ci yeneen dëkk yam ci capital régional yëpp parce que ñoom itam dañ ko soxla ndax su weesoo atelier yu mucc ayib yiñ leen war a defal war na am ay équipement maanaam jumtukaay yu méngoog jamono yoo xam ne dañ koy def ci atelier yi dina am sécurité parce que dina am gendarmerie dina am tam administration foo xam ne fa la ñuy saytoo sa liggéey bi waaye tamit dina am ay équipement yoo xam ne ñoom dinañ leen dinañ ko mën a jëfandikoo parce que ñëpp mënuñoo am équi euh, jumtukaay yu gën a xarala waaye dina am jumtukaay yu mbooloo ndax mbokk ak mbooloo ak mbokk mooy gën a jox nit ñi doole ak kàttan fa lañ leen di tam tàggate pour que xam-xam bi nga xamante ne dañ ko war a am ndaxte jamono day dox ñoom it ñu leen fay mën a tàggat ci seeni xam-xam muy projet bu yaatu bu am solo boo xamante ne incha allah dina nekk innovation maanaam lu bees lu gën a jëlal artisanat ca kanam te yem cam ci projet boobu parce que su dul loolu tam am na projet yoo xam ne teg nañ ko pour yeneen corps de métier yi parce que du ah, mécaniciens yi kese ñoo ko soxla moom mooy zone activité artisanale yoo xam ne dinañ ko def tam ci yeneen dëkk monsieur le ministre ñëw ci actualité tolluwaay réew mi mu mel ni autorité préfectorale bi dafa gàntal doxu ñaxtu wi nga xamante nii di di opposition bi bëgg nañ ko amal ci réew mi ngir ñoom itamit ñu nakarlu tolluwaay réew mi ak ni muy eh, doxee ban njàngat nga ci mën a def ci lu mel mu mel ni ndax eh, askan wi amatuñu sañ-sañ ngir dox ñaxtu eh, bu ñu demee ba di leen ko gàntal ce que mënuñu indi débat ci wàllu démocratie ci réew mi. xam nga dëkk dafa am yoon. nit ñi dañ ci war a jàll te dox ci ku dox ci yoon dëkk bi yomb ku wàcc yoon jafe-jafe dugg kuy dëkk ci yoon nag moom mooy ku bëgg dox ñaxtu am li ngay wax loolu liy ëpp ci ñi ko laajte autorité préfectorale bi jox na leen ndigal ñu def ko ci jàmm waaye autorité préfectorale am na ay xam-xam ak lu bu xam te loo xam ne man mii xaw ma ko yow xamuloo ko moo tax su toogee ci taxaw seetloom ba ne bu leen dem ñun dañu war a nangu la mu wax ñu daal di toog ndaxte loolu moom mooy may dëkk bi jàmm fan yi yéen a ngi déglu ay wax yoo xamante ne ci événement yi weesu yu doy waar yoo xam ne dégg nañ ko procureur dégg nañ ko léegi mu wax ci ay wax yoo xamante ne ku jaaxlewul danga amul njaboot mais lii lu grave la loolu moo tax suñu demee ba xam yooyu am na loo xamante ne dañ koy tere parce que tamit tamit am na lu xel nanguwul saa yu ñu ne nit woo nañ la ci loo xamante ne yow ak sa moroomu senegale yéen a ko jëflante ngeen war a dem ci yoon yéen ñaar yoonu kenn nekku ci su dul yéen ñaar nga woone dañ dem marche marche am na droit def ko mais pourquoi marche yi di tomber toujours. mais daf mel ni yéen a tere fi muy bëgg a jaar. non tere fi ñuy bëgg a jaar yooyu yëpp ay wax la xam nga lu tax autorité bi moom moo xam yoon wi nga xam ne foofu la nit mën a jaar te du gàllankoor kenn ndax xam nga nit ku nekk am nga droit dox say soxla. Ah, libre circulation des personnes et des bien ku ne am nga droit loolu la constitution wax waaw. waaye say soxla yow warut a gàllankoor soxla jàmbur xam nañu moom autorité administrative bi xam na ne kii su jaaree fii dina tënk yoon wi ba ñenn ñi nga xam ne dañ doon liggéey ñenn ñi nga xam ne dañu fa waroon def seen euh, euh, euh, ci ci la ñu yaakaar pour mën a jox njab lu ñu jox seen kër ak yóbbu seen njaboot bés boobu du ñu mën liggéey loolu bëgg-bëgg benn nit warut a gàllankoor bëgg bëgg-bëggu ay fukki junni junni junni nit loolu moo tax procureur wala pro autorité préfectorale dal di ne la jaaral nii parce que moom xam na ne soo jaaree noonu la ngay gàllankoor du bari tey suñ ne da ngay jaar marché Tilène mais ku yoroon atelier marché Tilène doo ubbi tey suñ la nee da ngay jaay corniche li ngay yàq du bari moom moo tax kii nga xamante ne mooy yore autorité administrative daal di ne nag jaaral fii man mi xam yoon wi xam ni yoon fi nga war a jaar te doo indi gàllankoor fii moo gën kon nag nit ki ñun tam. dañu war a topp loola loolu mooy jàmm sunu réew bi te looloo mës a may jàmm sunu réew waaye fii nga war a jaar nga ne du ma fa jaar man fii lay jaar lu la fa dal yow la. mais est-ce que jaar na usage de la force ñu gis oto yi ñu kayaase nu gis pamte pamte bi mu mel ni am na image gu mu jox Sénégal ci wàllu doomu aadama ni ñu ko war a fonke euh, non loolu xam nga Sénégal kenn ndax duñ ci def taxaw seetlu monsieur le ministre tamit waaw Sénégal kenn du ko jàngal nan la ñuy doxalee yoon. fii dëkku yoon la Sénégal ba ñu fi indépendance ba tey nit ñi cër boobu lañ ñu jox waaye nag am na loo xamante ne ku wàcc yoon gis yoon yar yar du ku yaru lañ ko defaral kuñ la nee awal nga aw coow du jib fa nga jëm dinga fa jëm te doo yàq doo toj waaye koo xam ne wàcc nga yoon yar fekk la fa loolu moom mooy li nga xamee ne moom la ñu jox état parce que tey état ñu fi amee lu yàqu wala lu toll ni tarafatal ay ni lu yàqu ci biir dëkk bi moom lañ koy laaj moom moo tax su la nee jafal defal soo deful it yoon fekk la fa te yoon tam su la fa fekkee yenn saa yi du gën ci yow. yoon woowu noonu moom lañ bëgg waxtaan monsieur le ministre. ban appréciation nga ci am parce que baaram tuuma ngi jëm ci yoon ñu naan mel na ni réew mi dafa am ay arrestation arbitraire réew mi dossier ñi àtte ci justice bi dafa am ku ma am day ak ku ma amul day surtout ki nga tudd muy Ousmane Sonko gis nañ at yi nu génn ba waxtu wi ay dossier am ci wàllu justice xelam dalul ci boobu la yoon ngir nu àtte ko ndax réew mi daa amul yoon. waaw tey ban taxaw seetlu dañ ci war mën a def. monsieur le ministre xam euh, yoon moo ki nga xamante ne day arbitre football. ñooy arbitre ñoo yem arbitre toujours ñiy fubal duñ ci ànd ku perte toujours danaa arbitre ba ma yàq yoon tam noonu la mais teewul ne kenn mënta dem ci match te du am arbitre ñoom saa yu ñu amee lu leen naqadi dañuy dem ci yoon kon luñ ko diingat diingat bàyyi nañ ko xel waaye nag suñu amee la ñu bëgg daal ne yoon a fi gën su ñu amee la ñu le xamante ne ñoom du loolu lañu ñu doon yaakaar daal ne yoon baaxul loolu nag fi lañ ko fekk allah kulli àll tant que yoon a ngi am di nga am na ñu ci kontaan su ñu demee ba àtte dina am ku kontaan ak ku du kontaan loolu moom fii lañ ko fekk lenn nag moo nekk moom mooy ndax am na fii ci Sénégal nit sañ-sañ suñ la tegee ci yoon nga am ay yeneen euh, yoon yoo xamante ne soo d'accordul am nga yeneen appel am na fi am na cassation ak yeneen ak yeneen ak yeneen am na sa rabat d'arrêt yooyu yëpp loo xamante ne nit mën na ko def su fekkee dañ laa àtte te neexu la waaye nag kon rek kon nit ñi suñ la woowee ci àtte nga dem surtout que nag bii dafa am loo xamante ne nit moo ko war a mën a nangu ñaari nit ñu jote suñu soxlaa ñu àtte leen nañ dem ñoom ñaar ñu àtte leen te bu ci kenn bokk mais su ci soo ci boolee ñeneen xajamal nga yëfi parce que tey man soo ñëwoon léegi fii ma toog nii nga saaga ma su ma la porté plainte yow nga woo journaliste yëpp daal ne léegi journaliste yi dañ leen di matadil dañ leen di kii corporatisme daal di jóg ñoomit ñu jóg ne daal ne dañuy toj te fekk yow yaa toog saaga ma te xel ma nanguwul nga fekk ma toog nii ak toog nii nga saaga ma wala nga jóg kurpañ dóor ma tëll ba pare daal ne kenn du la àtte loolu la xel nanguwul ñaari nit ñu jote nañ leen bàyyi ñu àtte leen léegi nag suñu leen àttee te fañ leen di àtte ñëpp a ngi koy fekkee ñu gis ne que du lu xam dañ koy tëj àtte leen làqatu ñu leen àtte leen dañ leen di àtte àtte publique audience publique ku ci nekk di nga déglu ki li ñu wax di nga déglu li koy wax fekkee nag li ñuy wax xel nangu ko mais am nga yeneen possibilité. daa ñaaw njort parce que dafa am yeneen chef d'inculpation yi ñu ci dugal bu weesoo diffamation bi diggante moom Mame Mbaye Niang ci cas bi ngay wax noonu. injure publique bi ak wàllu résolu faux document googu noonu tamit procureur dolli ko ci te au départ mu nekkoon diffamation waaw xam nga euh, ndax du nekk ci droit am ñaaw njort jàpp ni comme li mu jàpp mooy da ngeen ko bëgg a faagaagal ndax enjeu bi yëpp mooy ngeen tere ko mu bokk 2024 gi nu jot euh, xam nga tere bokk euh, ki koy wax du man du keneen conseil constitutionnel moo koy wax ku bëgg bokk ak ku bañut a bokk président du kenn ku ci mun dara tey bés bu ñu demee ci dañ ko tuumaal tuumaal moom dafa yomb yaa def defuma ana say màndarga nga ne samay preuve ngi nii ngeen dem wax da dootul amati parce que ñi sénégalais yi kenn dofatul te lépp les audience bi dafa public maanaam ñëpp koy fekke bés bu ñu ñëwee toog mu ne kii sàcc la ñu ne ko lu tax nga ne sàcc la nga ne moo sàcc lii fekk nañ ko jàpp ko indi mandarga yi nga xamante ne moo ko joxe muy preuve yi mais kenn du ci wax dara te bés bu ko euh, justice defee leneen mais boobu ci jëm boppam sénégalais yëpp dañ xam ne justice doxul yoon mu def appel su defee appel appel bañ mu yóbbu cassation te xel nanguwul ne que lii sénégalais lii juge ci sénégalais yëpp ñoom ñëpp dañu corrompu kooku xel nangu ko mën nga ne kii dañ maa bëgg faagaagal ndax kii su ma fa demee la mu fay wax du nekk li ma bëgg mën na ne yàlla rek a xam mais suñ ko defee nga yóbbu feneen nga ne tamit kooku tamit la muy wax du dëgg ñu ne ko jëlee ko feneen yóbbu feneen nga ne waxul dëgg mais suñ ko jàppee noonu kon tey jii Sénégal gi nga ne justice amu fi te sénégalais yëpp a yem mais ñi ne ci biir justice ñoo ne ci mbedd mi ay sénégalais lañu te bokkuñ ci sénégalais yëpp sax parce que sénégalais yi ñu tànn la ay tànneef lañu dañoo jàng fa ñu war a jànge ba ñu paree ñu def concours concours bu sélectif ñu jël ci ñi nga xamante ni ñoo ci gën a xarañ ñu jël leen yóbbu leen former leen ñu waat ba pare téye justice bi di ko doxal ñun ñooñu dañ leen ameel njukkal ndax des fois ci liggéey bi ñuy liggéey liggéey bu laaj pression la liggéey bu jafe la man am naa ci ay nit ñu ma xam ñu ma jege mais damay am ñeental si ñoom ndax dafa metti mais ne malgre loolu ñu sonn yëpp ak liggéey bi ñuy liggéey ñi ci biti ñi ngay re seen xeer di leen sànni ndax dafa yomb sooy sànni xeer koo xam ne mënta wuyu di saaga ko mënta fayu moom dafa yomb juge mënta fayu ndax li ko jox ci tënk moom mooy mënta wax yow mi nga xamante ne yaa mën a wax soo génnee ne taxaw daal ne juge bi du juge dara eh, lii la def lii la def tey jii ba li ñu waxoon yépp ci ñi ñu jàpp ñëpp jóg gën di yuuxu fa laa bëggoon jeexale ak justice bi ñoom nga tudd ñu gis ñu def sortie médiatique leeral lu bëri ci xew-xew yi fi am affaire docteur Babacar Niang Ousmane Sonko ak wér-gu-yaramam gone gi nga xamante ni plainte jib na ci waa këram ak Bamba fal ci anam yu ñu ko géré ca l'hôpital ga marché yeeg ak yeneen xew-xew yi fi xew yëpp ñu indi lumière ci lu bëri mu mel ni loolu waroon na ak ñoom xëy na argument yi ñu doon wax euh, ban jàngat lañ ci war a xam mën a def tey. man yàlla dafa def du ma sori trop ci loo xamante ne awma ci xam-xam gis nga justice dafa am ñoo xamante ne loolooy seen liggéey dañ ko jàng xam ko man ma wóolu leen su fekkee dem naa ba ci biir gis ne kaw ko la mu def doyuma parce que yàlla rek kamatale ma daal di demande appel ñoom ba ñu ñëwee ne leen téye nit ñi dégg nañ fi lu ne lu ne te balaa ñuy déglu ki nga xamante ne ñaar atte bu maandu da ngay déglu ñaar ñëpp waaye see dëggee kenn ki daal di ne tell daal di ne rajax yàq yàq nga loolu moo tax mu am solo lool ngay déglu ñi nga xamante ne ñeneen ñi tey ba ñu dégloo leeral na lu bare bare bare yàlla yàlla a xam waaye ku ci léegi mën ngaa am noo gisee mbir mi ndax kii wax na kii wax na te teewul na sax pareegul parce que dañuy kon ne càmbaraat mbir mi waaye nag lenn moom am na ku dégg lii ma dégg tey te dëkk fii senegal war ngaa tiit dama doon wax ak benn kilifa gu mag gu xam ne dama ko naw lool yal na yàlla yokk leeram muy sëñ Abdul Aziz Al Amin radiyallahu mu ne ma senegal dama leen a yërëm ma ne ko ndax lan mu ne dañoo réer ma ne sëñ bi nga wax ni doy na de mu ne dañoo réer ndaxte dañoo toog ci kaw pétrole ak gaz di faye almet Sénégal foofu lañ toll xam nga dëkk bii ñu wër yëpp dañu ne ci fitna te sëñ tubaa dafa ne woon lu waaye di ñaan te du jàmm jàmm ko gën ñun Sénégal jàmm lañ am waaye su fekkee tey ñaari nit suñu joteetee lu mu gën a tuuti ñu gis ci biir ay programme yoo xamante ne kenn xamul na façon programme bi nas ay nit jël ay ay ay bomb jël ay jumtukaay yoo xamante ne ñun xamuñu ko ñu ne loolu yëpp dañ ko waroon dugal ci biir nit mais suñ ko defoon ci biir événement mais ñaata nit ñoo fi génn seen bakken cocktail molotov daf dafa mën a rey parce nit ñi suñ ko sànnee ci mbooloo lu nekk xaj na ci maanaam yooyu yëpp procureur wax muy lu graaw a graaw tey jii nekk suñu biir dëkk bi mënuñ koo wax ba pare ñu naan dañuy waxtaane ay marche ak yeneen loolu ay détails lay doon sécurité publique mooy li nga xamante ne moo ëpp solo ci dëkk te président de la république wax na ko leer na nee na président sécurité publique moom moom lañ ko teg ci ndoddam pour mu doxal ko te incha allah dina ko teg ci yoon te yii fi amoon nga xamante ne ay jamono la woon am yenn yu fi newoon dootu fi amati jën nañ matuwaay yépp ba nga xamante ne lii ma gis nii tey heureusement que le 30 démantelé nañ yii nga dégg nii parce que yii suñ fa eggoon maari day taali maari day taali Sénégal nañ yeewu yeewu jot na nit nit ñi ku ne wax ak sa njaboot waxtaan ak xale yi xale yi xamuñu mag ñi xam nag nañu war a woo xale yi daal di leen gindi wax leen ne dëkk bii bañ koy defar ñoom juddooguñu kon du ñoom ñoo ko war a taal suñu toppee nag tey ay ñoo xam ne programme bi ñu yor ak ñun projet bi ñu yor bokkul ëllëg dina rëccu day gaaw te ñii nga dégg nii lii ma dégg procureur wax ak yii ma dégg ñi nga xam ne ña ngi ko doon teg projet boobu bokkul ak sunu bos fee ma dëkk Thiès am na ñu fa jàpp ñu ne que ñoom dañu amoon projet pour taal waxuñ sax dañoo ñëpp toog wax ko jël rajo toog. mais monsieur le ministre li ci ëpp li ci li li ci ëpp ñi ñuy jàpp bu ñu bokkul Pastef jege nañ Pastef est-ce que finalement du ñu wax ne da ngeen am acharnement ci parti Pastef wala sax ci Ousmane ragal gu nga xamante ne da ko ragalee moom jëmmam ngir euh, li ngeen di dëtmal te mu ne seen kanam monsieur le ministre. xam nga euh, euh, nit suy wax. na wax ca la ñu war a wax lu ci toll ñu wax waxam fi mu toll nii xam nga lu ñuy wax ay nit yu jóg jël seen jumtukaay ne dañuy taal dëkk bi parce que nit ku ñëw toog daal di ne dëkk bi ma dëkk xam naa kilifa yi fa ñu dëkk ku ci ne dinañ dem ba foofu taal kër ga ca suba sa ca bés ba taxul ñu jàppaleen de parce que des fois nit dina wax ñu ne kii wax ji ay wax rek la su fekkoon jëf wuyuwul wax ji soo demee ñii kenn du leen jàpp ndax nit ñi yàgg nañ wax lu ëpp loolu waaye ca bés ba ca suba sa ñu ñëw jël ay ay cocktail molotov dem ba ci kër kenn ci kilifa yi ne foofu sànni ko fa dem ba ca Auchan ba sànni ko taal ko ah léegi nag wax taxaw jot na ña waxoon jëf fekk si na ko wax nag su ko jëf fekk see wuyu na boppam. mbaa àgguñu sa kër rek. ca Thiès. <laughs> sant yàlla. sant yàlla. waaw may man. ah Thiès fa laa dëkk koo dem Thiès xam na fa ma dëkk kon man làqatuuma fa su may ñibbee Thiès léegi nii su ma wàccee incha allah sama welo welo laa yéeg wër ci biir Thiès ba événement yi amee sama welo laa yéeg wër biir Thiès kon man. sama digganteeg waa Thiès sama waa Thiès ñooy sama arm sama kaaraange Thiès waaye. mais lan moo la may nga nekk à l'aise noonu lu jafe ngay mën a doxantu di dem ak dikk te dara du la ci fekk biir Thiès. <laughs> man aw ma garde corps aw ma policier yooyu ñi gars yi di wax yëpp nit ñee ko soxla ca biir dëkk ba ma dëkk soxlawu ma ko parce que man sama premier garde corps mooy waa Thiès ndax dama séq ak ñoom teraanga séq ak ñoom teraanga yàlla def ay at a ngi nii la ma am bariwul waaye lu ma am bokk kook ñoom fa ñu dëkk ku ci jaaxle ci fukki nit yoo doon woo balaa ngay woo juróomi di nga ma tudd la ma yor bariwul ma sédd kook ñoom kooku nag soo ko defee ci ay nit ànd ak ñoom ci fépp làqoo leen ubbi sa buntu kër xale yi di fa ñëw ngay dem di leen fekki kooku tam wax dëgg-dëgg xel mën na rafet nga njott ne kooku ku la fa tooñ daf faa dëkkul mais leer na ma man ku dëkk Thiès du daal ci sama kaw waaye nag nañ jël suñuy matukaay parce que yenn saa nit mën naa jóge comme ni ma gisee ni procureur di wax nit di jóge fu ne di ñëw waaye fekkoon ñun kese la suñu biir ñun ak waa Thiès non sama xel dal na foofu. ndax sa xel dina gën a dal par rapport ak jëmm ji di président de rek République Macky bu ñu ko tuddee guddi nu toll nii xel dem ci li ñëpp di waxtaanee muy ñetteelu candidature am ngir mën a wax ñetteelu mandat ndax doo génne wu moom mu waxoon ni. ba bind ko wax ko fu ne jamono dox ba ci kàddoom gu mujj ak suñuy naataangoo yi nekk tugal l'Express mel na ni niiw yi nii noonu waaye léegi sax eh, nee na bu dee question juridique bi réglé woon na mën naam sax bu ma ko def mën mën peut-être eh, waaye àddoogul waaw xam nga loolu mais loolu est-ce que du indi problème au moment où opposition bi def seen plateforme def bloc jàpp ni waru ko def te waru fee am Euh, ndax yéen a ngi mesurer conséquence yi mu mën a jur. cest à xam nga conséquence bi mu mën a jur. waaw nit toujours da war a jàng ku nekk day jàng ci li weesu président de la république li ma wax sànq duma wax man duma sori trop ci loo xam ne man du sama métier te du xaw aw ma ci xam-xam président de la république wax xalaatam la wax mais président de la république géologue la. pétrole la xam ak gaz. institution la moom dama ne déet dama ne pétrole la xam ak gas moom la jàng. kàddu foor na de. kàddoom mooy li mu xalaat mais amu ci xam-xam xalaatam la am na ci droit nag yonent bi sallallahu su daan wax Ababacar daf ko daan liggéey wax alxuraan la wala sa xalaat la su dee alxuraan la duma ci wax su dee sa xalaat nag man am naa sama bos. président la république foofu lañu toll ak moom xalaatam moom la wax waaye li mu wax du constitution constitution kenn rek moo ci mën a wax kenn kese kenn code donc muy conseil constitutionnel yow soo ci waxee da nga am fit man su ma ci waxee damaa am fit sama xalaat rek laay wax waaye conseil constitutionnel kese code donc moo mën a taxaw dal ne lii ànduma ci wala kii mën naa dem wala kii mënta dem te conseil constitutionnel boobu tant que waxul keneen ku wax dafa wax xalaatam président nag noonu la defee waxee xalaatam noonu la tamit soo ko waxoon ne président Macky Sall am na droit noonu la tamit euh, Barthélemy Diaz daal ne am na droit seeni xalaat la man du ma ci tënku. yow luy sa benn xalaat laa am. mooy conseil constitutionnel lu mu wax loolu la ñuy def ñaareeli xalaat bi mooy lenn lu conseil constitutionnel mën a wax itam lu conseil constitutionnel du fal askan bi mooy fal. kon noppeegu leen ci seen ànd déglu baax ma te askan bi mooy fal te loolu waree nañ ko en 2012 ba ñu ne président Ablaye Wade warul ta falu warul ta jël prochain mandat mais askan bi ñoom ñoo wax ne président Macky Sall mooy nekk président mu nekk lu fi xawoon de monsieur le ministre. mais dama ne conséquence boobu parce que nit ñi dañoo ndax sóoraale ngeen li ne mel. déedéet parce que xam nga lu tax. dañoo ku jàngat ci nga xam ne kon loolu warut am rek yoon. parce que nit ñi xam nañ ne mën nañ ko régler neneen xam nga ko amul jumtukaay ku amul jumtukaay mooy wuti beneen jumtukaay boo xam ne du yoon yeneen dëkk yu bari lu tax ñuy bañ troisième candidature est-ce que xam nga ko ndax dëkk yooyu élection du fa dox yoon moo tax du ñu nangu mukk kenn président candidat parce que su ko dee day dëpp kees gi fii nag moom mënta ne leer nag ñëpp ne su fekkoon dëpp mën naa ne Thiès gee ma dëkk président Idrissa Seck ne fa ñun ñu ne fa ñu boole ñëpp ci benn mbuus dóor ñu ci suuf kooku fekkoon mën nañoo këpp kees kees foofu lañ koy jëkk këpp mais loolu leer na Sénégal que këpp kees mënu fi am dakaar ak ni ko président bëggee woon ak ni nga xamante ne ñoom la ñun moom la soxla woon ti ko ñu jël ñu boole ñu teg ñu benn côté kooku xam nga ne kon sélection Sénégal kenn mënu ko sàcc ala kuli al comme kenn mënu sàcc élection ñaar kese ñooy wax ci élection Sénégal ñaar keneen ku nekk day wax lu la neex kenn ki mooy conseil constitutionnel mooy wax ku ku mën a ne beneen bi mooy askan wi mooy wax ku mu àndal léegi na comme ñoom nee nañu Sénégal yëpp d'accord ñu ci. candidature opposition bañ na def nañ seen plateforme de bloc lañ def am nañ ci droit. lu inédit lu mës am plateforme bu mag société civile. mais am nañ ci droit mais am ñoom ñëpp def bloc. wax sa gis jàpp ni waru leen ko def. mais am nañ ci droit bu leen ko jéem. mais am nañ ci droit xam nga ku nekk am nga droit am sa xalaat ñoom am nañ droit ne lii du yoon waaye ñoom amul kenn ci ñoom. koo xamante ne yoon may la ne yaay wax kii mooy candidat wala kii du candidat ñoom amu ci ku génn nag de ci wàcc nga yoon lu ci dal yow la man sama doom bés bu génnoon ca loola mu am ca safaan mu ko dal ko moom naa ko ne yow mi ba booy dem attention woo coo cee dem ndax tere nañ ko léegi nag ku dem lu la ci dem lu la ci fekk yow la parce que am nga gànnuwaay gànnaay par pardon am nga gànnaay am nga gànnaay soo àndul téel sa gànnaay soo àndee nga téye tamit sa keneen ki téye gànnaayam suñ demee ba foofu mbañ gàcce bi ku nekk xam kan la dëkk yi ragal candidature mooy dëkk yi amul élection bu tegu ci yoon Sénégal nag élection tegu na ci yoon xale yi ku bëgg ànd ak président ci lii nga xam ne moom la teg ba ñëpp gis ko ne xam ne lii moom mooy yëpp Sénégal ca kanam ñëpp teg ci seen bët ñu ànd ak moom nañ ci def conseil constitutionnel nag su demee ba ci biir ne président mii mënta nekk candidat moom président mu bëgg ko mu bañ ko du nekk candidat bés bu ko ko conseil constitutionnel waxee nag boobu nag ñun ñooy taxaw moom mu ne man bëgg naa wala bëggul ñu ne ko ñun nag dañoo nekk ci parti parti boo xamante ne moom da cee bokk nag mais ñu it dañ cee bokk mu def ci nag lu bari waaye ñun tam ñu def ci lu loo xam ne tam xeebuñu ko suñ toogee moom dina toog mu toog mu ne man ànduma ñu ne ko ñun ànd nañ ci te suñ ci àndee nag ñun suñu parti nañuy doxee mooy majorité mooy wax ñun ñu ànd ci moom su majorité bi bëggee mu bëgg ko mu bañ ko dina nangu majorité bi parce que ci loolu la suñu parti du doxe li majorité bi wax ci lay dem su majorité bi nee nag mën na nekk war na nekk candidat incha allah dinañ ci waxtaan ak moom fiñ ko war a waxee ci instance yi ko war a waxee su fekkee conseil constitutionnel nee na mën na ne alhamdulilahi rabbil su conseil constitutionnel nee mënta ne ñu xam ne tamit ñu wuti feneen ak wuti leneen. mënta ne est-ce que dinañ ci àgg <laughs> ak ni mbir yi di demee nii ndax bu mënta ne tamit ndax da ngeen a waaj beneen plan. <laughs> yàlla rek a xam mais en leen moom leer na. suñu sukkandikoo ci li nga xamante ne moom la ñu àtte 2012 xel mën na ko mën nañoo rafet njott waaye loolu man ci rafet njott laa yem kaddu conseil constitutionnel kese la ñëpp mën a xaar te moom la ñuy xaar. amoon nañ mbégte ànd ak yow ci yile ponk soxal tolluwaay réew mi xanaa ñu bàyyi la rek nga joxe sa kàddu gu mujj monsieur le ministre. di leen sant ci opportunité bi ngeen ma jox pour ma mën a wax ak askan wi waaye dam di ñaan askan wi ñaan surtout xale yi ñu xam ne dëkk bii bañ koy defar juddooguñu nañu góorgóorlu ba buñ ko taal ndax bés buñ ko taalee. ñii gën a ñàkk mooy ñi yoragul ndaxte ci lañuy yaakaar ëllëg kon xale yi nañu góorgóorlu ànd ak dal ànd ak teey ba jàmm ji nga xamante ne moo doon tax ba Sénégal ñëpp di ko naw jàmm jooju am fi suñ la nee bul dem toogal am nga bës boo xamante ne kenn du tere kenn dem moom mooy bésu élection bindu jil téyel sa kart àndal ak ki nga war a àndal soo fekkee moom nga bëgg nga voteel ko soo bëggul nga voté keneen waaye naat su ma lii laa bëgg su amul ma taal dëkk bi yàlla nañ ci yàlla musal loolu laa doon ñaanaat askan wi di ñaan tamit ñi nga xam ne ñooy borom dëkk bi eh, kër kilifa diine yi ñu gën a ñaan waxtaan tam ak seeni i taalibe parce que Sénégal loolu lañ mës am kilifa yi nañ wax ak taalibe yi dalal leen ñu teey joxe ndigal ci jàmm ñun tamit liñ ci fi war a am ñu defe ko ci jàmm ndax lii ma dégg procureur wax ah ku mu tiitalul defe naa ni sax xel neexul maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp